dafa mel ni gars yaa ngi a euh, gerte waa ñu ngi a gerte fii place Dial healthy food la food process la ñun ñi food process la waaye man suma enterprise boobu mooy tudda Dial healthy food. Dial healthy food bi am na ñu ma dee liggéeya ndooral ñoo xam ne ñoom tamit food process lañ soo seen kër yi yaatuwuñ te dañ dee liggéey liggéey yu bari soo ñu ñëw fii di liggéey mel ni wan laak joojo Xadijatu Sumbulu ak Noppal Jeeg lañ dee liggéey waaye right now tey maa ñoom bi fekk nga leen maa ñoom ñooy liggéey dege lañoo defar gerte saar dege waaw gerte bi lañoo ñoo taana nii su ma bàyyee laa jooju ak sira ñu expliqué la tax ñuy taana gerte bi ah, ñu commencé si ci am ñu ngi fekk comme ñu ne dege la ñoo defar ah, gerte bi ngay génnee nii moom baaxut wala waaw gerte bi may génnee nii baaxut am na gerte bi si biir gerte bi gerte bi am na yoo xam ne dañ ko dee génnee maanaam eh, yi xolleeku ak yi xam ne mu ngi def saabu yooyu yëpp dañ ko dee génnee ba pare dañ dee am yoo xam ne tam yu comme yu lax laxit yi nii yooyu daf dee joxe benn feebar waaw daf dee joxe benn feebar moo tax ñu koy génnee si biir gerte bi ko defee ñu bàyyi fa boo xam ne bu baax bi moom lañu dee saaf def ko dege waaw. ban mooy bu baax. Euh, ngay xamee ne gerte bi moom moo baax. buy amee buy xam ne dafa nekk bu lax si biir gerte bi. mooy maanaam bii nii ma téye nii boobu mooy laxit laxit bi boobu lañ dee génnee léegi nag bii xam ne mooy bu baax mi mooy bii xam ne dafa rafet bu set bi nii comme maanaam bii moom lañ dee saaf def ko dége maanaam laxit yi moom la ñoo génnee sànni ko ak yi nga xam ne dafa saaboog yooyu ok li nga xam ne mooy kemba bi comme nu ko soob waaw moom ngeen a tànn yooyu yëpp génnee ko génnee ko si biir gerte bi waaw bu rafet bi moom lañ dee saaf ñu def ko dege waaw moo tax koy tànn xëy na am na ñoo xam ne dinañ bëgg a laajte parce que suñu ne dege xëy na du nekk euh, dege yëpp euh, benn euh, anam bi lañ koo defaree xëy na du ñàkk am na ñoo xam ne dañoo defar dege di jël ra la xaw ma laxir mi wala boog yi nga xam ne dañ saabu ñu boole ko ci biir loo gisee loolu wala dege yëpp nii lañ koo defaree. déedéet am na ñoo xam ne nag duñ dee toog pour génnee laxit yi ak yi def saabu pour ñu tànn ko génne ko si biir gerte bi ñun nag. dañ nekk ñoo xam ne ñun dañ am ñoo xam ne spécial dañ dee toog pour am time boobu noonu di toog di taana di génne eh, eh, laxit yi ak yi xam ne dañ def saabu di ko séparé génne ko sànni ko ñu jël yoo xam ne yu baax la saaf ko moo tax ñu am suñu processing centre bi koo xam ne bugga nga get dege boo xam ne dege bu bu bu set bu sellal mun ngaa indi sa eh, sa gerte bi fii ñu liggéeyal la ko maanaam liggéey bu set boo xam ne dinga ko am euh, comme ni ni mu war a xelti sa yaram bi. ah yaa booy yow tamit ñu la gis yaa ngi si di tànn euh, gerte bi noo gisee liggéey bi. liggéey bi de xanaa liggéey bu rafet lañ bugg a def liggéey bu baax nga xam ne ku ko gis rek di nga ñëw laajte jaal yaasin ñëw uti si bagage yi because gerte yi soo gisee ñuy ko taana gis nga am nga dif façon yu bari si yu yaaxu yi gis nga bii naka la la naka la mel bii am na lu ñuul si biir bii dafa mel ni lu luñ saaf ba mu saafuñ ko de baaxut gis nga bii bi la ñoo afro toxine bii moom moo gën a bon si gerte bii nii moo tax ñuy ko tax na gis nga beneen façon bii tamit ma yi ma la woon yii benn nuróowut dañu baaxut baaxut baaxut baaxut si biir bi baaxut pour yéey dara baaxut si moo tax ñu ko dee taana mu saani yu fresh yii la ñuy taana ba mu baax yii la jël ñu def ko dégg saaf ko bem mu set machine bi yëpp a ngi ñu fii soo saafee fii nga dem bees si gannaaw taana ba mu set nga ñëw def ko dégg si biir fii ñu def ko ci siwo yi. xanaa loolu ah, jàngit la parce que tey ah, laxit yi ngay wax ne moom lañ de génnee di ko sànni ah, am na ñu bari suñu wax ne gerte sax duñ ko yëy duñ yëy kemb. waaye li nga xam ne mooy laxit yi dafay saf sukur boobu nag mooy moo gën a neex si gerte bi moom la ñuy te yaa ngi wax fii ne gerte bu baaxut moom jaaxal ma lu tax mu jaaxal ma lool boobu moom baaxut baaxut ñim safee sukur noonu noonu la garaawee baaxut moo tax ñu ñu ko dee taana ba mu seet ñu génne ko soo ñu jël fraise gerte gi defar ko dege def ci gerte ya, bu moo koy tamit ah comme que yow mag nga xëy di nga xam eh, lu bari ci dégee nuñ ko daan defaree woon suñ maam yi ak ak léegi ah, lan mooy différence bi su nekk ni ci wàllu tànnin eh, gerte bi taana bi kañ moom benn façon bi la waaye liggéey bi dafa wuti because bu njëkka dañ koy saaf bees ko bem set nga saaja ko si génn gi dérukaay boobu moom munatuloo ko gis a léegi amatul nga jël ci dege bi teg si dérukaay bi jël bouteille moom lañ ko daan déggee moo gi nag moo ko bu machine bi sax rafet bee bugg a waaye léegi xam nga dañ tayal duñ liggéey machine yi yaaxa na ñu léegi moo tax léegi mënatuñoo def loolu soo ko buggee def sax maire maire randul indi ñu jël machine bi soo moo léegi ñu ñu jàppa si machine bi waaye ba tey mun nañoo def liggéey boobu waaye dafa yéex waaw bii moo gën a gaaw baax na jërëjëf ñu seetaan comme ni ngeen a tànnee ba ñu dem si next process ba ginnaaw bu ngeen tànnee ba pare euh, laxit yi nga xam ne wala gerte yi nga xam ne ñoo jot a saabu euh, ñoom da ngeen koy sànni wala. duñ ko sànni yi mun nga koo yuusaan nga def ko saabu yi ñoo raxasee sujeer yi saabu suuda yi waaw mun nga ko defaree waat saabu bu di ko raxasee sa sujeer yi fuut sagar sagar yi waaw du ko fuut sa yére yi ngay sol de. léegi euh, li nga xam ne baaxul ci euh, yaram xam ne am na du ñàkk ñoo xam ne dinañ bugg a laajte euh, comme ni nga waxee woon gerte yi baaxul pour lekk waaye saabu tamit xëy na nga ko war koo jëfoo si sa yaram ak yooyu ndax amul benn gàllankoor boo xam ne war na ko mën a def nit si yaram. du def dara dañ koy raxasee sujee rek raxas sa morso waañ fóot sa morso waañ rek nga def saabu yooyu lañ ko defee mooy ñoo jaay ci marché bi saabu yooyu ñoo danka noonu waaw saabu suuday yoon soo leen paree ci lii dañ koo jël euh, jox ko gars yi wala dañ koy yoo jënd si fii yéen wala da jël saan. su mun nañ ne a oo oh, ñu ñëw jënd ko because am nañ njëriñ si ñoom ñu liggéeyal ko suñ boppa daal. suñ ko jaayee seen bopp because dañ ko ci price dañ ko jox tegee dafa seer ñu liggéeyal ko suñ boppa moo gën.